mooy. man bu ma leen di dégg ñuy wax man ce que je ne comprends pas. ñoom ñi nekk opposition ñoom ñi nekk opposition. c'est-à-dire non au troisième mandat ñoom ñu ngi ko commencé avant Macky Sall di am di 2019. am na si ñu bëri ñoo xam ne seen programme de campagne 2019 dañu ne woon Macky Sall boo la ko falee dafay wutaat beneen mandat mais pendant cinq ans pendant cinq ans attends rek pendant cinq ans. ils nous ont pollué avec ce troisième mandat mais le troisième mandat n'est pas un modèle de gouvernance loolu du programme de gouvernance man li ma bëggoon mooy par exemple am wax na tey tey président bu ne woon non ñoom lan mooy seen offre man bu ma dégloo les leaders que ce mhm. soit partout ñee am na ñoo xam ne am nañ nee nañ projet le projet projet bi kenn xamul la nekk ci biir mais projet bi moom li mu li mu woneegum mooy c'est le projet de la violence c'est le projet du sexe c'est le projet du sang. ñan noonu. ñan ñi si des xam nga waaye Yewwi Askan Wi ñoo xam nga leen bu baax. donc donc donc ça ça ça ils ont leur projet ñeneen ñu aussi seen projet gis nga le discours populiste s'arrête à la porte des institutions su ma toogee dinaa def lii dinaa def lii ça s'arrête mais la réalité étatique. Mhm. boo ci confronté di nga xam ne yóbbante galgal ubbul làmb toog nag match bi. toog ci banc de remplaçant yi naan Sadio Mané waroon na def li waroon na def li boo duggee ci terrain bi li nga xam ne demeewul noonu et aujourd'hui le président Macky Sall a fini de de faire la preuve qu'en dix ans qu'en douze ans vraiment le Sénégal s'est transformé et a évolué dara nag motul une génération du tabax dëkk mais vraiment lim ñu woon doy nañu te ñun gis nañ ko ñun les exécutifs ko